seen site Dakar Matin moo leen seen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbali yër yéenekaay yi ak mbiru Ousmane Sonko ndax nag yéenekaay bii di Sud Quotidien ne dafa mel ni jamono yi gars yi dañ koy bëgg a xoqatal sa Ziguinchor ndax am na lu fa xew ay responsable Pastef ñoom la ñuy xoqatal di leen harceler te ñu koy def du ñenn ñu dul renseignements généraux yi dem nañ ci sax ba wàcc ci kër yaayam yéenekaay bii La Tribune ne Sonko nag ba mu gisee mbir mi dafa na du ñenn lu dul nguurug Macky Sall bi nga xam ne dañoo am tiitaange jamono yi waaye source a ne kii nga xam ne moo di Aly Ngouille Ndiaye wedd na loolu ci biir yéenekaay bi di laas Aly Ngouille Ndiaye na loolu dara du ci dëgg Sonko ma ngay accusé gendarmerie na ko li nga wax dara du ci dëgg loolu la ñu yéenekaay bi di quotidien wax des ba tey ji ak Ousmane Sonko mi ne faax ci xëtu yéenekaay bi di direct info lu mu waax nee na nguur gi nekkeewu fi lu dul défendre ay intérêt tubaab ak ñeneen ñi nekk bitim réew bàyyi intérêt sénégalais yi l'observateur di jàngatkat mooy Ousmane Sonko nee na candidat bu mën a show la de bu mën a show lool wal fajri nag candidat yi bëri na de léegi surenchère yi nag takar naa se ci réewum Sénégal waaye élection présidentielle yii la ko lay di ko mooy lan pétrole bi baaja jaaba jonge fii ci réew mi loolu la ñu Dakar Time xamal enquête ne waaw loi bi nga xam ne day aaye sondage jaaxalu leen man de dañ koy aaye saa su ne ne sondage waru fi am te foo dem ci parti politique yi ña ngay def sondage di ko nëbb wala sax di ko wax ca kaw ku ko njëkk a violé nag kan la Macky sàll ca boppam loolu ñu yéene kay bi di enquête xamal Macky sàll këram sa géejawaay a ngi tàkk ndax nag Lat Diop ak freeram di Aliou Sall ña ngay xeexoo di tojante bopp zoom info na police sax dafa chargé Lat Diop Khalifa Sall yéen kaay bi di laas ne wuutoom ci fi nga xam ne moo di mairie Dakar mu ngi bëgg a jur coow ci biir xalifis yi ndax nag Banda Diop nee na Khalifa moom lay jàppal Moussa Taye na ko dëgg dara du ci dëgg li nga wax noonu. Khalifa Sall jàppalewu la tey jàppalewu la suba tey Thiayba ci biir yéenekaay bii di enquête nee na nguur gi bu bëggee ndakaaru na xaar ba élection yii di ñëw. yii moom ci yaakaar yéen kaay bi Le Quotidien ne alcool yokku nañ ko cinquante pour cent ci njëg yi yéen kaay bi L'Observateur ne scandale sexuel bu doy waar moo am ca yëmbal benn mason moo doon piège ay jigéen ñu ëpp nag ñu yoon ci sëy ñoom ñëpp di tëdd ak ñoom nag loolu lépp ci nga koy jaarale nag ci net bi Vox Populi dellu si waat ci mbirum góor jigéen bi xew ci Liberté 4 nee na histoire bu doy waar la jërë ngeen jëf dégg bu ne de jën seen site Karmatin point com